ma téye wala lii yor tey jii nag sens de responsabilité la ku fi toog El Hadji Abdoulaye Thiaw laay ku ko jur Seydina Issa Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw maay taawam tudd Seydina Issa lii nag dal ci réew mi daloon na fi ci jamonoy baayam 14 Seydina Issa appliqué hadis ba en mu amaat mu defaat loolu mettre nit en quarantaine ca boobu tubaab fi nekk kon nun li nuy wax diine may na nu wax ko ñaareel bet nag réew mi dafa am lu ñu tuddee contrat social la ñu taxawal état et muy la puissance publique ñun ñëpp ñoo jël suñuy force suñuy nangam jox ko nit kooka am légitimité yore appareil d'état am na loo xamante ni bu neexoon nit ki du tàggu ma sàmba du tàggu ma dem day appliquer la constitution

tek leen seen place tek leen seen nangam kon fi may tàmbalee ñuy tuddee jàngoro ji ñi mu dal yal na leen yàlla wér ñi ka jo ñu ko yoragul tim yàlla bu mu egsi si ñoom mais yàlla na yàlla aar réew mi ma commencé waat ci turu nag sama waajur Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw nuyu kilifa diine yi ndax bu nu masaan egsi fii da ngeen daan gis ñu tudd kilifa yépp ñuy sunuy kilifa muy kilifa diine Sénégal yépp tey jii lu nu mën a am itam ku rawatina El Hadj Abdoulaye Thiaw dafa bokk ak réew mi rawatina kilifa diine yi bokk ak ñoom lépp kon xew mi ñoo ñoom ñoo ko mas a bokk te noo koy bokk kon ci loolu laay tàmbalee nuyu kilifa diine bi ñaan yàlla sunu kilifa diine yàlla leen fi yàlla yàggal yàlla leen yàlla te et puis nag njaboot gi ñaareel bi muy président de bi xam ngeen ni bu ñu toll woon ba fii tey président bi ñu commencé ba léegi daf ñu accompagner bu waxtu état bi ak lamu doon nangame nangam ba li exi ñu ngi ci ak ñun waaw kon nak koku mënul fe taxaw ay ati at ñuy taxaw fi defe naa presse bi wéré way gis ñu nan kan jaajeuf diw ya fi def li yow yow yoti moko fi def tay rew mi am ay galankor ñu melni ni xamatuñu koku pour des raisons lan ñun nous sommes indépendants ñaar am nañu taxawaay bu nga xamanteni am nañ ko tey jii ci réew mi tey Sénégal moo soxla tey euh, Sénégal moo nekk ci ndàngam nun nag ay doomu Sénégal lañ lu Sénégalais yi yëg moom la ñuy yëg lu ñu nangam moom la ñuy nangam te képp ku mën a taxaw xool ñi nga xamante ni tey jii seen xam-xam moom màcceewu ci loolu màcceewul ci loolu sëñ Ablaye citoyen sénégalais la ndax carte d'identité nationale defalu ko boppam dañ ko kaa jox kon problème citoyenneté moo posé yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi muy royukaay bu mag bi keroog bi muy gàddaay génn war a génn dafa geesu ak màkk wàcc yàlla ni amul benn dëkk bu ko gënal màkk mais tey l'obligé mu war a dem Medina mooy loolu amul fu nu gënalul Sénégal lépp lu nga xamante ni dina laal Sénégal dina laal Serigne Abdoulaye dina nu laal dina laal communauté layène te dama yaakaar dina laal ñëpp nag réew mi nag ah noo ko bokk kon moom wax ni mesures yi nga xamante ni moom la état Sénégal Sénégal jël teg dëkk ci réew bi ñu nekk ci réew di ay citoyen war ci ay nangam amuñu lu ñu ciy teg ca kaw ku ma déglu démb wax naa ko te moom lay répété amuñu beneen mesure bu nangam di def ñii def fii ñii def Sénégal du ay principauté c'est un état unitaire lu leer laay wax donc nun nag li nga xamante ni moom la état sénégalais tëral teg ci lañu tegu ci la Serigne Ablaye teg ku nag taxaw am leneen looy wax libre nga ci nun duñu dugg ci liberté kenn mais tey yée ngeen fii ci kër xalif général de Layène El Hadj Abdoulaye Thiaw mi ngi fii ci biir néegam defe naa ni kuñ ni sa baay dafa gumba ngay gis sa baay dafa lu ngay wax sa baay dafa dafa laago ngay dox sa baay am na lépp kon nag fii ñu toog tey may dellu di tëje suma wax ni xew-xew yi fi daan am ñu koy def fii mu tudde ko appel ki woote woote bi ba mu ne appel defe naa ni jaamu yàlla mënul nekk ci ñaari fan de bu dee at mépp ñaari fan nga ciy jaamu yàlla seetal sa bopp waaw te lim ñun ñëpp ñoo d'accord ni nanu xool benn bit jëm xib la jëm feneen foofu tëj seeni nangam kon nag nun duñu mën a lu dul tënku ci diine may nañu li ñu def tënkut ci suñu réew en tant que citoyen sénégalais may ñu li nu li ñu def kon dañuy ñaan yàlla ci ak mbaaxam yàlla na dal gën a am ci réew mi yàlla na jàmm gën a am ci réew mi kilifa yi mo xam ci lepp suñu réew dal yalla na yàlla gën a suñu cohésion gën ñoo dëgëral nak suma ko waxé dina wax ni nañu gën di privilégier li ñu tuddé citoyenneté réew mi soxla naka lool réewum Sénégal laa ni réewum sénégalais yi réewum sénégalais yi bis bu ñu bëggé nak continuer nekk fi nous sommes nangam 95% de nangam ñi ci dess nangam nak nañu suñu bop ñi ci dess ay sénégalais la ils sont là église bi ay sénégalais lañu comme ñep keneen sax ay sénégalais lañu comme ñep namu amé fenen feneen lëkkum diine ku ma lie diin këri diiné yi nak wenn say la mag ñu bax ñi doon na tey bàyyi fi ñu fi bàyyi héritage bi ñu fi bàyyi alhamdulilah rabbil alamin gëm nañ ni bu ci Sénégal téye dëgër ci té kenn doxul seen digënté li ñu yor man nañoo téré fu gën kon nun lool lay wax di di di di nak gërëm bala may dem fenn moy ñi ngeen gis may liggéey ak ñoom mooy le groupement central le comité gaa yaa ngi nii teg ceet su may rakk ngi nii ñoom jala ngi nii ñeneen a ngi fi bàyyi ma joon sànq la fi jógee ñeneen a ngi fi ñeneen a donc mun naa ni famille la sëñ Mamadou Lamine macha allah waroon naa ñëw dafa am gàllankoor ci sunu biir kër moo tax gis ngeen yëf yi ni mu yéexee kenn koo xam ne la ci ñun moo fi jóge te yàlla na yàlla ah ka ko ay leer loolu nag bu amee il faut que ñu mel ni mais ñun ñoom ñëpp volonté bi ñoo ko bokk bi ci guddi ñu ngi fii ko coordonné nangam wax leen ni kër gi amu fi xam nga lan la xalif général a ngi fii toog muy El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye ñun ñii ñooy njabootam amul ñaar ak ñett nja genn njaboot rek fi nekk nag na nit ñi yóbbu loolu kër laayeen amul ñaar amul ñett amul ñeent genn kër la njaboot gaa ngi naka ñëpp yóbbu li ci des nak

bu ma ubbee ni état sénégalais wax na du ñu jël kàddu état teg ko ci leneen ki ko génne institution la yoon may na ko loolu ay citoyen sénégalais lañu li état bi rëdd dama ni ci la communauté laayeen teg seen tànk renvoi ak report la ba keneen jusqu'à nouvel ordre ba ni ko gouvernement bi wa allahuma salli ala sayyidina